ñu ko dañu koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ko ànd ak wér di barke Seydina Mohamed di wax tuuti rek ndax wax ji mënul ñàkk parce que li tax mënul ñàkk mooy ki nga xamante moo xew la tey dari kilifa daf ne toog yàlla dafa dogal ñu déglu tuuti rek ñu judd ci wetam nekk ci wetam ba bés bi ñëw doon ay dëkkandoo doon ay mbokkam te yonent bi dafa wax dëkkandoo moo gën a tooy ci seede mbokkam Assane dafa nekk nit ku baax ku yaru koo xamante ne bii jikkoom Bambey gépp xam nañ ko dañ ko daan faral di wax te tey dañ dafa dañ ko dafa prouvé maanaam li daan faral di wax buñ mosaan di campagne dañ daan wax ne Bambey xam nañ ne Assane ëpp fi diplôme Bambey xam nañ ne Assane ëpp fi alal bambaykat xam nañ ne Assane ëpp fi lii waaye kenn ëpp fi Assane ja ab yar yaru na téye na maandu na ba tax na xëy na loolu bokk na ci li ëpp doole li ko gën a may Bambey waaye nag comme dañoo dëkk moom dañ koo xam soxnaam Sidi Issa Gueye xëy na olof Ndiaye daf naan boo gajee geer geer lay jeppi yéen suñ gone yi dañuy ñaan ci barke Seydina Mohamed sëy bu mos a yal na ci yàlla barke boole sëy bi. dama leen jox rek benn firnde bu ndaw sëñ Saliou mii toog way juróom bu góor moo doon kólle rek baayu Adama mii ñu may soxna aadama di topp loolu di topp loolu ba ba way juru kii génn ci tey moom mu ñëw topp doomam ndax foog kólle kon Adama moom bu leen nee am na kólle rek gëm leen ma li tax. kii moo nàmp jox yaayam mu nàmp bakka ma nga na le toog Adama ay frère am kii frère am ay mbokkam rek ñoo fi nekk papam génn na àdduna yaayam génn na àdduna boo gisee waa koñ ba yëpp jóg ñëw ci xewam bi c'est parce que Adama ku ñu jox cër la ku yaru la li ñuy ñaan rek sëñ bi nga ñaanal ñu na ñu yàlla may lu ñu yoree mbenn yàlla ñu yàlla may xolu lu ñu yoree mbenn ak fit lépp ba ba ba bu ëllëgee bu ñëwee bu ngeen gisee seen xel dal. kër ndeyam allah jéggi nii toog moom yaayam ñoo bokk ak baay kër baayam magam bu mbokkal ndey baay ngi nii kii nga xam ni mooy Alioune Diop di baayam di dund moo jël xale yi jël ko teg ko seen loxo ni dénk naa leen nag bu ñu waxee loolu ak ñi fi ak ñi yem ci jàkka ja. nee na ak ñi dem ca jàkka ja. maanaam Bambey na kon nag xam ngeen ne Bambey gépp daje nañ. lan moo ko waral. nee na te lu ko waral. jëmmi Assane Dia. nee na jëmmi Assane Dia mii moo ko waral. nee na muy monsieur le doon koo xam ne nag. nee na doon koo xam ne. ñi njëkk a wax fii. nee na ñi njëkk a wax i yëpp. li ñu wax mënu maa wax lu ko weesu. nee na li ñu wax mënta wax lu ko weesu. damay cof rek ci li nga xamante ne nee na day cof rek ci li nga xamante ne nii. moom la ko son excellence. nee na moom la ko son excellence président Macky Sall wax. dañ sañ koo wax fii. nee na dañu sañ koo wax fii. ngir Bambey gi yëpp dégg ko nee na ngir Bambey gi yëpp dégg ko. ku leer ci ñoom pour le bon nee na nga leer ci ñëpp pour le bon. Assane nee na Assane mii day. son excellence sant na ko gërëm na nee na ki nga xamante ni mooy. na la. fàttali na ko na ko bis nga wu ci politique. nee na bi nga ko fàttali ko bi nga njëkkee engagé ci politique. na couleur parti rek nga jël. adduna di dox. nee na adduna di dox. adduna la ca nekk lépp nee na politique nag la def nag. na ba yàlla suñu borom def. nee na nga wuti. daa di am nee na di am. waaye nag. nee na waaye nag. man mii Assane. nee na dañ na moom mii di Assane. sama yitte. nee na moom daa yitteem. du sama jëmmi bopp. nee na du jëmmi boppam. du sama famille. nee na du famille. ndax yàlla am na lu mu may. nee na ndax yàlla suñu borom am na lu mu ko liggéey naa bay waaj a retraité. nee liggéey na bay waaj a retraité. ay mbokkam it. nee na ay mbokkam it. am na ci lu ñu am na ci lu ñu jàpp. utul bamba it. nee na bamba it. def ci poosam. nee na pour def ci poosam. waaye dafa am loo xam ne. nee na waaye dafa am loo xam ne. boo ko bëggee ci dëkk. nee na boo la ciy mën a. nee na état a dimbale. loolu nag. nee na loolu nag. nee na loolu la ko président Macky Sall wax bi mu toogee. sama kanam nee na ci kanamam. kanam ministre Mor Ndom nee na kanamu ministre Mor Ndom. ak Serigne Cheikh Gueye mu baax nee na ak Serigne Cheikh Gueye mee toog. sama sëriñ Grand Valet nee na ak sëriñam Modou Mbaye mee toog loolu nee na loolu nag mooy président moo ne nee na président moo yëkkati kaddu ne ko sa jëmmi bopp taxulaa ñëw nee na sa jëmmi bopp taxulaa ñëw loo am taxulaa ñëw nee na loo am taxulaa ñëw li nga ko ku la dimbale ci Bambey nga bëgg dina la ci jàppale nee na taasan président nee na dina la ci jàppale dina dina la dimbale ci Bambey Bambey mel nu mu nee ba Bambey mel nu mu mës mel loolu loolu moo di